asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp bëggoon uh, wax ci ay kàddu jëmale ko ci observatoire bi nga xam ne mooy l'observatoire national de lieux de privation de liberté l'observatoire national des lie de privation de liberté ON LPL nekk ci biir Sénégal di organe bu bokk ci Nations Unies di dox ci ay àq ak yelleefu ñu ñu tëj ci kaso yi caabi féete leen ginnaaw may yëkkati sama kàddu yi di leen ko jagleel di gis liggéey bu am solo bi ñuy def ci ñaxtu gi ñuy maanaam saytu gi ñuy saytu prison yi di fa dem di xool ña ñu fa tëj ñi caabi féete seen ginnaaw di fa def ay dox seetlu koy ay asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp bëggoon na euh, wax yëkkati ay kàddu jëmale ko ci observatoire bi nga xam ne mooy l'observatoire national de lieux de privation de liberté l'observatoire national des lieux de privation de liberté ON LPL nekk ci biir Sénégal di organe bu bokk ci Nations Unies di dox ci ay àq ak yelleefu ñu ñu tëj ci kaso yi caabi féete leen ginnaaw may yëkkati sama kàddu yi di leen ko jagleel di gis liggéey bu am solo bi ñuy def ci ñaxtu gi ñuy maanaam saytu gi ñuy saytu prison yi di fa dem di xool ñu fa tëj ñi caabi féete seen ginnaaw di fa def ay dox seetloo koy ay enquête ngir bëgg sàmm seen ay àq ak seen yelleef mu nekk lu may rafetlu lool te Sénégalais yu bari xamuñu leen ndax xëy na lu ñuy communiquer bariwul waaye ma am lu ma bëgg a yëkkati jëmale leen ko ngir ñu gën a taxawu gën a fësal seen liggéey gën a communiquer def ay point de presse dem ci télé yi ak ci rajo yi def ay rapport génne ko tasaare ko ci réseaux sociaux yi ba Sénégalais yi gën a xam njaam ak nooteel gi nekk ci biir kaso yi ndax jamono yi may wax ak yéen kaso yi ndakaaru yi fees na dell dell dell dell ba nit ñi ñi ngi fippu te bu ñu deful daa daañu dajji kaso yi génn ndax tëj gi Macky Sall def ne mooy li koy may li mu bëgg ci troisième mandat ak yeneen ak yeneen nag ak noot sénégalais yi surtout ñi ànd ak Ousmane Sonko bu ku yëngu mu dugal ci kaso yi kaso yaa ngi fees dell ba nit ñi xajatuñ ci loolee nag musiba lay jur ci réew mi am na ku rëcc barki démb daw génn ca kaso mbuur ba waa Casamance am na ñoo xam ne ña ngay buuxante foofu ndax Casamance comme fale Ousmane Sonko nekk kuñ jàpp def ci kaso bi du ñu yem rek ci jàpp def ci kaso yi dañ leen di dugal ci kaso yi sëf leen sëfa sëfa sëf ba ñuy tëddante seen kaw wala ñu taxaw ay bisi bis yoo xam ne kenn du mën a teg sa ndodd ci suuf pour nelaw te loolu lépp Macky Sall moo ko tey ak ñi mu àndal ministre de la justice ngir lan jël sénégalais yi daf leen ne ay xar xar sax tundeewul noonu ndax xar sax boo ko takkee ci gétt bàyyi ko fu mu mën a wëlbatikoo fu mu mën a tëddee waaye lii ñu nekk ci kaso bi amuñu ko te Macky Sall moo ko tey ngir lan torturer leen xor ñooñol leen mettital leen toroxal leen waaye loolu lépp ci kawam lay xëpp incha allah donc observatoire national bi des lieux de privation des libertés bi liggéey Sénégal maa ngi koy woo di ko interpeller ak képp ku ciy liggéey ñu gën a taxawu fësal seen liggéey communiquer ci parce que bu ñuy def liggéey bu am solo di ko saytu te duñ ci wax nit ñi duñu xam loolu tamit day nekk liggéey boo xam ne kenn xamul nu mu nuru parce que booy liggéeyal aw askan li ngay def askan dañ ko war a xam def ci ay rapport annuel rapport yi génn ñu publier ko nekk ci réseau yi dem ci télé yi di wax waaye sénégalais yi xamuñu ne observatoire bi am na fi l' observatoire national des lieux de privation de liberté sénégalais yi boo jëleen téeméeri sénégalais ñaar ñoo ko ci xam wala benn loolu tamit kenn xamul lu mu doon kon ñoom seen liggéey dañ ko gën a taxaw fësal ko te xam ne ni ñu nekk ci kaso yi te makki Sall dugal leen fa xor ñooñal gi mu leen di xor ñooñal ak coxor gi mu jël teg ko ci seen kaw ak dund bi ñu dund ci kaso yi bàyyi ma sax du ko dund waxuntuma la ak nit Macky actuellement dafay torturer sénégalais yi daf leen di martyriser daf leen di aujourd'hui di leen teg ci ay conditions yoo xam ne Sénégal dafa signé ay convention au niveau international yoo xam ne dafay xeex lépp luy xorñoñel ak jàpp nit def ci kaso bi di ko mettital te Macky Sall dafa nekk di torturer si ñu nekk ci kaso yi fi mu toll nii may woo Sénégal yëpp ñu dem ci kaso yu xool li fa xew Rebeuss ak Camp Pénal ak surtout kaso Ziguinchor aussi Casamance ak Bignona kaso yaa ngi fees dell ndax dañuy politique kuñ jàpp def ci kaso bi ñi nekk fees dell ci kaso bi di ay xale ak i ndaw yoo xam ne ñi ngi leen jàpp ndax ànd gi ñu ànd ak Ousmane Sonko képp tax koo ci sëq jàpp sànni ci kaso bi ñu dankalikoo fa mel ne ay weteñ lii la Macky Sall nekk ci réew mi ba noppi taxaw na benn prisonnier politique nekkul ci réew mi Sénégalais yi ñu ngi leen di woo yéen ñëpp ngeen jog taxaw ñu fippu xeex ak Macky Sall dajji kaso yi génna ñi fa nekk ñëpp ñu ñibbi seeni kër ndax wuyu yi mooy Macky Sall ñi mu àndal ak ministre yi yeeg sàcckat yeeg phobie yeeg milliards yeeg jaaykati cocaïne yi ñu ngi ci wër Macky Sall ak ñi sàcc alalu réew mi ñoo ñëw la tëdd ci kaso yi waaye du xale yi xeex ngir seen ëllëg baax ñu mën a am lu ñu dunde tappale yi ci réew mi dafa a dakk nañ ci xale yi jóg ñu fépp ñun ñëpp àndandoo xeex ak wuyu yi nekk ci bopp réew mi yàq réew mi te xale bu jóg gi ko xeex ngir ëllëgam baax ñu jàpp def ci kaso bi naan terroriste ngaak farce spéciale ak commando ki cocktail molotov fekk yu kenn xamul te ñoom ñoo yor seen seeni nit jox leen ay fetal ñu wër ci biir ndakaaru di doori bal bus bu nekk nit ñi gis leen te kenn waxu ci sénégalais yi nañu jóg dugg ci kaso yi dajji kaso yi génn ñu nekk ci kaso yépp ñu fa nekk du dëgg du yoon ki doon wax ak yéen di seen bokk ak toon di ñaan ngeen partagé ko mu yaatu ba waa office national des lieux de privation de liberté ñu mën a jot sama ndéggat lii ba mën a wax ak askanu Sénégal wax leen li xew ci biir kaso yi ndax kat tubaab yi yëg nañ ko tubaab yaa ngi ci bëgg a jóg daañu ci wax incha allah rabbi parce que ñu ngi ci def ay rapport di ko envoyé ci organisation des droits de l'homme yi nekk ci bitim réew ak fépp ba ñu mën a xam lii nekk ci biir kaso Sénégal yi te Macky Sall di ko def ki doon wax ak yéen di Akhenaton di leen ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàcc waaye di ñaan ngeen partagé ko salaamaaleykum asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp bëggoon euh, wax yëkkati ay kàddu jëmale ko ci observatoire bi nga xam ne mooy l'observatoire national des lieux de privation de liberté l'observatoire national de lieux de privation de liberté ONLPL nekk ci biir Sénégal di organe bu bokk ci Nations Unies di dox ci ay àq ak yelleefu ñu ñu tëj ci kaso yi caabi féete leen ginnaaw may yëkkati sama kàddu yi di leen ko jagleel di gis liggéey bu am solo bi ñuy def ci ñaxtu gi ñuy maanaam saytu gi ñuy saytu prison yi di fa dem di xool ña ñu fa tëj ñi caabi féete seen ginnaaw di fa def ay dox seetloo koy ay